mu ñëwee woon bàyyiwul kenn Amadou Ba noonu la def nee na bu dee jigéen ñi am na banque boo xam ne 150 milliards la siy def mu nekk une banque dédiée bu dee màgget ñi am na loo xamante ne nii nag loolu mooy surprise bi dencal ne leen lu wax pension prestation vieillesse maanaam sénégalais boo xam ni même boo musul a liggéey boo amee juróom benn fukki at ak juróom am loo xam ne ni ñu def si bourse de sécurité familiale yi dañ la koy compal te kenn du la ko compal si ñetti weer weeru ne lañ la koy compal yaram tegginam valeur yi nga xam ne moom la sénégalais yi am mu nekk ak mu am ko ba pare dig leen ni li nga xamante ni ne mooy tarixa yi nga xam ne mooy cëslaayu Sénégal ceinture de bii ñu wër ndax nag ko amul foo wéeru da ngay neex a bëmax gis nañ ni li téye Sénégal ku ko xamul ñàkk ngaa xam li ëpp solo Sénégal muy tarixa yi tey jii kenn mënu la këf ab murit dugal ko ci leneen kenn mënul këf ab tijaan dugal ko ci leneen kenn mënul këf ab laayeen dugal ko ci leneen kenn mënul këf koo xamante ni noyewul ku dul Baay Ñas dugal ko ci leneen loolu ñu am nag te ñeneen ñi amuñu ko mooy li nga xamante ni tey jii moo tax terrorisme amagul benn doole Sénégal ndax fu ñu fëggee bu ka fa nekk yar nañ ko ab ndaw da nga koy yar ci xale ne rëdd day mel ni boo rëdd ci ciment bu ñu tabax dootul dañati bu mukk ñun amuñu lu dul Sénégal amuñu lu dul Tiwaawan dëgg la nag ñun Macky bi ñu nekkaloon mooy suñu mentor ci wàllu politique moom la ñu àndal yàgg na wante ñun kii nga xamante ni mooy Amadou Ba dañu partagé valeur yooyu ndax moom aussi Macky Sall mooy mentor politique am ba tànn jotee mu tànn ko joxoñ ko parce que nag dañuy yaakaar ne nit bu la wanee loo xamante ne nii tal na xel la koy war a continuer foofu rek nga war a teg sa tànk kon nag ñun waa Tivaouane amuñu lu dul Sénégal amuñu lu dul Tivaouane ñoo bokk ndey ñoo bokk baay wane nañ ko ci comité électoraux yi toog waxtaan def un programme commun di ko exécuter nii nga ma gisee nii ma ànd kook Ablaye Ndiaye Ngalgou le maire Diop si mi ngi ñëw fekk ñu si ànd ak l'honorable Gamou Fall ñeneen ñi ñuy ñëw fekk ñu tey ñu génn dëgg-dëgg wan waa Tivaouane ni leen Benno Bokk Yaakaar bi ngeen xamoon taxawaay bu ñu amoon ci Macky Sall bu ko raw moom la ñuy am ci Amadou Ba ngir mu am ndam. comme ni ko sunu frère Mamadou Diagne Sy Mbengue waxee léegi yàlla dafa dogal ñu ubbi campagne bi depuis presque une semaine gisuñu les responsables du de Benno Bokk Yaakaar barki démb ñu tenir benn réunion monté suñu comité électoral jàpp taxaw dañu war a taxawal benn caravane pour génn wan waa Tivaouane wan waa Sénégal que Benno Bokk Yaakaar est avec Amadou Ba euh, Tivaouane est avec Amadou Ba. Euh, donc li ñuy wax Tivaouane li ñuy wax sénégalais yi mooy dem nit même boo fekkoon politico sax ci réew mi tool dafa jot nit ñëpp jóg politique ngir au moins pour la stabilité de ce pays ngir aussi jàmm ji nga xam moom la Sénégal soxla ngir li nga xam ne moom la économie bi soxla ndax defe naa ne candidat bi bi ñu jàkkaarlool nee na su jëlee réew mi dafay changer monnaie bi. te yaakaar naa ne loolu changement monnaie boobu dina tax Sénégal dugg si guuti goo xam nga xam fan lañ jëm dina tax ndax booy booy changé monnaie da yàlla day dogal nga am ressource yoo xam moom ngay exporté alors que ñun jàpp nañ Sénégal exporté wuñ lu dul gerte donc exporté gerte defe naa loolu mënul téye ko économie donc raison pour laquelle ñun ñëpp ñoo war a jóg taxaw jàppale le candidat Amadou Ba parce que c' est le meilleur candidat c' est le meilleur profil ko jàppale ko mooy jàppale li nga xamoon Macky Sall commencé egg Amadou mën ko ñëw eggale incha allah. gis ngeen ñun ñëpp ñoo ànd tu les leaders ñoo ànd vraiment ànd bokk ndey bokk bàyyi pour wuti ndam li normalement Tivaouane warul compliqué parce que toutes les forces vives de Tivaouane ñoom ñoo ànd donc normalement warul compliqué donc pour bu kenn jaawale yëpp bopp fas bi la rek vraiment bu Amadou gagné dina baax ci Tivaouane parce que bëgg na Tivaouane te te te te dëkk il faut nga attan ko. ci candidats yi ñu gis yëpp 19 candidats yi ñu gis man Amadou laa ci gis ne attan na dëkk bi am na un programme cohérent am na un programme chiffré xam na fi muy dem xam na fi mu fekk dëkk bi xam na li mu bëgg ci dëkk bi te xam na ni mu ko fa yóbboo ñi si des ñëpp dañuy wax ay programme rek mais chiffré wuñ ko waxuñu fan lañ koy demee te bu fekkee ni ko yow boo demee ba jël pouvoir bi ngay toog a toog réfléchir foo ko jëmee defe naa di nga perte temps bu bari te fi mu ne nii waruñoo perte temps dañoo war a jëlee dëkk bi fii bu nekk yóbbu ko fa sori te man am Amadou Ba rek laa gis ci ñi mu am un programme cohérent qui peut faire qui peut transformer le Sénégal définitivement avec une transformation structurelle qui permet quand même une création massive d'emplois wax na ni un million d'emplois lay créer et wax na ni mu koy jaar pour créer mu daal di leer ji naññ naññ ñëpp xam na ni li wax c'est des c'est un programme ah spécifique mesurable réalisable et lié au facteur temps loolu mooy programme bu nga xam ne mën nañ ko apprécier donc vraiment loolu day ñu jàpp bokk ndey bokk baay xam ni que euh, président président Amadou Ba moom moo mën a égaler liggéey bi nga xam ni président Macky Sall moo ko defoon parce que ñoom ñaar ñoo àndoon mu nekk nag ku ko déggal koo xam ni que vraiment ci PSE bi liggéey na ci lu bare bare bare kooku moo ko mën a égaler te il faut que ak loo démarré da koy égalé ndax 2015 2035 mooy programme moo doon programme pour yóbbu Sénégal ci émergence donc il faut liggéey programme bi moom moo ko mën a égalé ñu jëm ci émergence ñëpp gis seen bopp. boo leen xoolee fii rek ñi fi taxaw rek doy na kontaan mais li ñu ñaan waa Tivaouane mooy seeni doom ñoo fi nekk jàkkaarloog yéen am soxla am yitte yaakaar seeni yéen yaakaar yaakaaruñu kenn seen i voix lañu yaakaar. seen i carte lañ yaakaar bu ñu génnee si naaj bu tàng bi heure koor ñëw fii yaakaar waa Tivaouane a tax ndax ñun lu ñu am indi ko Tivaouane muy man muy Ablaye Ndiaye Ngalgu muy Abdou Ndéné muy Diagne si muy Seen bu ñun ñëpp lu ñu am fii lañ koy def kon ñun dañoo bëgg ñun lu ñu am dañ koy bokk ak yéen dañoo bëgg nag lii nga xam ne ni mooy suñu soxla ngeen def ci seen fulla def ci seen fulla ndax Sénégal moo soxla bu Sénégal soxlaa nag ñëpp dañuy jàpp ne que Sénégal tey du heure waxtaan tey du heure wax dañu bëgg rek wan leen ne que li ñu nit ñi di wax teguñu ko si yoon li ñu doon wax léegi-léegi ku am programme da nga koy génnee di wax wante sosal du programme wax bu ñaaw du programme xam nga lan lañuy wax lan mooy jëriñ Sénégal cinq ans yi ñu jëm lan la ñuy defal nit yi lan lañ defal mag yi lan lañ defal xale yi lan lañ def ci dëkk bi lan lañ defal daara yi lan lañ defal loolu moom mooy wax ji mais wax ji du ay saaga wax yi du ay xaste leneen li ñu bëgg ñoom gàmmu faal a ngi fi parce que responsable la bu nekk fii tamit ci biir Tivaouane mu jaral ko mu bàyyi restaurant tëj ko ñëw taxaw fii adjoint maire yi ñëpp ngi ñëw taxaw ça veut dire que seen i yëpp ñoo dajaloo ne dañoo bëgg dëkk bi ren ñu xam ne ñun ñoo génn suñu bopp ci yéen lañ ko yaakaaree nag na ngeen ñu dimbali li laa war a suuli ci barke Alaaji Malick loolee na am ngeen bàyyi ko bu heure ba jotee ngeen ñëw wooteel sëriñ bi wooteel Sénégal wooteel seen bopp asalaamaaleykum jërëjëf